balaa may dee ñu ne Barthélémy Dias dafa tudd baaram diw dama ne diw ñëwul ma ma ñor mooy état état nag yàlla moo dogal tey mu am ku koy ku koy représenté ñu koy woy le chef de l' chef de l' boobu ci audience boobu dañu fas yéene interpellé des problématiques qui relèvent sa responsabilité donc foofu laay xaare Sénégal xaaruma état du Sénégal feneen. donc nag mbokk yi moom laa bëggoon euh, wax euh, ci ci wolof euh, xanaa gërëm ñëpp sant éventuellement s'il y a quelques questions nous allons répondre à des questions pour la première question. Bonjour, c'est Natasek de la radio municipale de Dakar. Je vous entends pas bien. Euh, bonjour, Léa Natasek de la radio municipale de Dakar, c'est bon Oui. Euh, alors, j'ai une question. Euh, vous dites que vous comptiez, euh, que vous comptez le chef de l'État. Malgré tout, est-ce qu'on ne pas faire ce bras de fer tant vous par les Dakarois et les Sénégalais Donc une question est relative euh, à l'organigramme des collectivités territoriales. Aujourd'hui, qu'en est-il des cas du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna Monsieur le maire, on prend une deuxième question ou on vous laisse répondre d'abord Je vais répondre pour qu'on ne se répète pas peut-être. Un peu en français, en maa ngi sàkku ci mbokk yu nekk ci ginnaaw nañu may ñu mën a liggéey suñu liggéey s'il ngi sàkku ci mbokk yi ci may ñu mën a liggéey suñu liggéey ngeen ànd ak dal s'il vous plaît voilà nous avons donc question qui consiste à savoir si il n'y de bras de fer daanaka ci gàttal da ngeen laaj xam est-ce que dina am bras de fer entre Central ak dama ne bras fer ñu nekk ñaar bras de fer mu am foog mu am ñaari loxo du noonu waaw man damay bras de fer ci vingt trois bi wax dëgg yàlla bras de fer bu su leerulee ci seen leer seen bopp buñ leen dóoree ci élection yi xanaa leneen lañ a yokk mooy ñaanal leen yàlla beneen xolu muñ bu des nag mooy ñoom liggéey Dakar sargal askanu Dakar foofu la ñuy xaaree état bu Sénégal xaaruñu état bu Sénégal feneen. kon alliance boobu waxoon naa ko ci campagne bi da koy bëgg sama responsabilité bu Barthélémy Dias bu ñu jóg dem seeti madame Macky Sall ñun xamante ne loolu baax na fa waaw baax na waaw wante maire Dakar dama doon suma responsabilité la ma ma jóg sol suma ay dàll ci turu Dakar dem seetu président de la du Sénégal ñëw ne lii la Dakar namm lii la Dakar soxla lii la Dakar di xaar ci yow mooy suñu responsabilité te loolu dama ko fas yéene euh, def parce ma fu ma Dakar ak Dakar waaye di xaar wax ngeen ci waxu organigramme de la ville de Dakar dama xam lu tax ñu bëgg a singal capitaine Touré ak journaliste la su ma ba ma toogee ba tey damaa tànn lu ëpp douze personnes suma cabinet am na ay chargé de mission am na ay conseil technique am na ay conseil spéciaux ñu ngeen di gis suma ginnaaw ñun ñëpp c'est le cabinet de la ville de Dakar lu tax kenn waxul seen wax yéen est xam ngeen dana waay bu ñuy woowee Omar Blondin Diop suma cabinet mas ngeen dégg tudd mi ngi ci cabinet bi mas ngeen dégg ci cabinet bi ku ñuy woowee Ka ci cabinet bi lu tax nag ñoom kenn waxu seen wax lu tax ñu bëgg a sikkal Guy Marius Sagna ak capitaine Touré balaa may dee ñu leen waxu organigramme ñoom ñuy wax na ngeen dem xooli seen organigramme ak ngeen xool seen ay décision parce que une chose est claire mooy présidence de la république organigramme bu fa nekk mënoo fa am presque trois cent ministre conseillers et conseillers techniques et chargés de mission mënul nekk nekku fa waaw kon nag ñoom su ñuy nekk ci seen maa tey man nangul leen seen maa tey wante dañ ma may man ma mën a liggéey suma liggéey du ma ko yor santaane ma bëgg nag wax ci leer constitution du Sénégal waxuma waxu décret xam ngeen décret président moo koy signé kon nag man décret sakuma dama ne constitution du Sénégal di suñu alxuraan di suñu Bible moom moo wax collectivité locale yi dañ leen baaxee libre administration kon nag asitëfi amul benn loi amul benn décret bu mën a ñëw tegu ci kaw loolu mënul nekk libre administration mooy man dama ne may dégg kenn Sénégal amul sañ-sañ ne ma balaa ngay tànn ñun sa cabinet da ngay jaar ci man ma autorisation du ma ko def tey du ma ko def suba amul président Macky Sall ni mu ko falee suffrage universel direct noonu la ma falee man suffrage universel direct man nekkoon naa fi député assemblée nationale du président Macky Sall musul jaar assemblée ne est man mën naa am conseil wala conseil bi yaa ngi wax waxu organisme soxna si kan mooy directeur de cabinet du président de la République man xaw a wax mooy lu loi bi wax loi de cabinet du président fa laa yem ci wax loolu la loi bi wax waaw man suma directeur de cabinet mi ngi nii titulaire de plusieurs masters ancien directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis ancien directeur de l'hôpital Abass Ndao ancien directeur de l'hôpital Albert Royer titulaire de diplôme universitaire waaw ñu ngi wax ci waxu capitaine Touré d'abord capitaine Touré d'abord tey dañ koy jaar jafe da ngeen tàccul capitaine Touré capitaine Touré dañ ko doon décorer tey Sénégal ñoom ba ñuy complot seen complot capitaine Touré su gëmuloon yàlla dama ne capitaine Touré ay mbokkam moom may dégg su gëmuloon yàlla peut-être tey dina dégg beneen grade wante nag su ko defoon tey Sénégal di ngeen dégg lu ëpp 14 morts. Capitaine Touré, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Bon matin. Guy Marius Sagna nag moom tey Sénégal ci gàttal amatul syndicat balaa may dee ay di dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci wante nag yàkkamtuñu fi kenn waaw syndicaliste ngay taxaw ne da ngay la ville de Dakar fii mairie de Dakar di ngeen gis nit buy butul am master cent quatre-vingt-dix mille francs yu bokk ndey ak baay di ko yóbbu kër. voici où les syndicalistes qui parlent pour le nom et le compte des travailleurs de la ville de Dakar doivent parler te bàyyi bu dugg ci li nga xam ne seen yoon nañu ci waaw. man bokkuma man man dama ne. étudiants yi ñoo ma yónni. étudiants yi ñoo ma yónni ma ñëw fii aw ma droit wax sax. te yow kilifa nga yow mujjatit nga ci politique da ñëw pour beesal wax leen ne kii la mujjatit la ñoo ngi xagina jaw yëpp ñoo ngi xagina question bi il faut qu'on se comprenne waa presse bi ab déglu rek s'il vous plaît sénégalais yi ab déglu